asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waajur ñoo ngi sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. di sant ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Jëmb Fall di ko nuyu di ko ñaanal mu yàgg fi te wér. ñoo ngi fii nag ci kër Serigne seex Jëmb Fall xalifa général kullu Baye Fall. a ah, ànd ak benn association boo xamante ni mi ngi tudd waa Ngéwal gi salaam tamit. Euh, association boo xamante ni mi ngi tudd Isbu Salaam bi ñu ñëwee fii kër Serigne Cheikh Jëmb faal fekk fi waa kër Cheikh Ibrahima Fall fekk fi Baye Fall fekk fi Murid yi en tant que euh, kuy dox ci social. tey nag ñu ñëw war ko tàmbalee fii nga xamante ni mooy kër Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine ki nga xamante ni bii moo leeral lépp ba yoon wépp leer tey jii kon nag ñu di leen wax ni tey jii ñoo fii kër Serigne seex Jëmb Fall ci Mbàkke Bawol ci Paaleen xalif général kullu Baye Fall kon gañi ñu avancer ba ci biir rek am quelque lu leen wan ci li nga xamanteni mom mo nek ci liggey bi ak lu leen fasiyene yéene fi fii tey kër Serigne Cheikh Dieum Fall. aafiya jàmm judul dañ ya ko may mbot kuy jang fi diwan ya defal Cheikh. assalamu wa warahmatullahi taala barakaatu yéen mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi ànd ba tey ak waa Elvision Média maa ngi toog ki nga xamante ni nag mi ngi tudd mi ngi wuyoo Ahmed Samb ñu gën koo xam ci Ahmed Jackson nekk ci benn euh, groupe bu ñuy wax Ramdan mu ànd ak waa association Ngéwél gi Salaam ñëw fii ci Mbàkke Bawol ci kër Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général kullu Baye Fall ah ñëw fi nag indi fi ay social doon indi addiyam fi moog waa Ngéwél gi Salaam yëpp euh, ànd ak euh, délégation bu am solo ñëwoon fii nga xamante ni mooy ëttub Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina ñu jàkkaarloog Ahmed xanaa kon Ahmed ñu di la laaj rek lan moo sabab nga xalaat sa sorti bu njëkk nga ne damay tàmbalee ci kër Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina lan moo sabab nga ni kat sama social bi may jëkk def damay ànd ak waa Ngéwul gi salaam ñëw fii nga xamante ni bii mooy dëkkub Serigne Touba Xaadimu Rasuul lan moo sabab loolu lañ bëggoon a xam ak ban yëg-yëg nga ci am tax loolu yi tey yàlla dogal nga ñëw fi Mbàkke Bawol salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokk taalibe yëpp li tax ma ñëw fii nag yaakaar naa ni kër moom booy dem dangay jaar ci bunt bi te Cheikh Ibrahima bunt bi moo tax ma jaar ci bunt bi Serigne Touba mënoo am ci moom lenn lenn lenn te jaaroo ci Cheikh Ibrahima looy wut ci sëriñ tubaa rek ci Cheikh Ibrahima ngay jaar mooy bunt bi moo lay ubbil moo lay tëjal moo tax Ngéwél gi am seen première sortie ñu jaarale ko ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall te loolu nag mooy dëgg sax moo tax ñu def ko. lan moo waral Ameth ni moom bu jógee di dox ci leen rekk lay dox muy social lu tax loolu. waa dañ di taalibi sëriñ Touba teg ci bëgg tamit maam Cheikh Fall ndax. taalibe moom ci moom la njëkkee eh, suma baay am lu mu bokk ak moom kon mu noonu wax ni ngéwél gi salaam bu nu jógee kër Cheikh Ibra rek lañ mën a jóg ne bërët dem yegg ca yàlla te ñun moom lañ gis sunu xalaat ak sunu xel gépp ci Cheikh Ibra rek lañ mën a ñëw ubbee ko ngir mëna yegg fi nu bëgg yegg muy mbër mag mi. su ngeen fi jógee wa association bi lan mo doon seen xalaat lan mo nekk ci seen kanam yan projet ak yeen façon sociale mo war nekk seen kanam. wa bu nu jógee fi dinañ dem ci dëkk bu tedd bi tamit ndax bari na ci kër nongo daara yi xam ne ci daara yi ni dem joxe fa suñu social ndax ngeewul gi rek ko tax ak dugg tamit ci prison yi nga xam ñi nga xam ne yàlla teg na leen nattu ñu leen di jàppale di leen jàppale bu baax ci social ngéwél gi salaam daal ay géwél ay artiste ay taalibe ñoo dajaloo jël seen ñaq di dimbali ay néew di doole loolu moo ñu tax a jug moo tax bu nu jugee fii dinañ wër ci daara yëpp dinañ dem di leen dem Ndiassane dinañ dem waa kër Maam Limaamu Laay Yoof dinañ dem kër Omar Fouti te bu ci nekk rek nit ñi di leen ko gis ndax dinañ ko dox wax ko def te yàlla tax mais nag dañ di murit nag di bi maam Cheikh Fall moo tax lépp lu ñuy njëkkee dañ koy njëkke ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndax loolu moo ñu war. en tant que musicien ak itam kon diggante sa sa métier ak association bi lu leen boole ak lu leen xaajale. waaw xam nga nag aar moom boo ci nekkee maanaam artiste. day yeete te artis mooy wax li tax nit di yëg ndax boo bégul doo bégalee da ngay bég mën a bégalee ñun li ñuy def dafa ànd ak lii xëy na nag dafa am ci beneen côté bu ñuy nekk rek pour yëngu ndax artis day béggal ku mer moo tax ñu nit ñun artis mooy artiste moo tax tiis kooku ñuy aar mooy waral sunu ñaq ñu koy jël di ko dimbalee néew di doole yi ndax ku ne xam na ni ci weeru koor la nekk weeru koor ñun di dinañ toog weer duñu liggéey waaye lanu liggéey ci at bi yëpp dañ koy jël xaaj ko jël ko dimbalee ko néew di doole yi moo tax ñun dañuy yàkkamti sax weeru koor jot ba nu mën a saafanteeg jaam ñi ñëw góor yàlla yu mel nii ñu mën cee jaar jaamu ci yalla suñu borom. sama dernière question ak yow moy ramdan ak association Ngéwél gi salam naka lañu ñu ci bir en tant que sen collègue bu ni liggéey ndol créer ben association bu tol ni nga defee ni jotut dama jëlélé ke ci gëna ndaw sax mais ke ci gëna mag nga xamni moy lit vocal bu ba nekk ca booba Ramadan ñoom ñëpp àndandoo soobandoo ci euh, def ci sen loxo. ma ngi lay déglu lo légui message waale. dégg naa mi ngi wax ba di tour xewal ne ma barke maam Cheikh Fall dama kontaan ci li nga def xëy na nag euh, moom dama doon liggéey ak baayam waaye baayam am na yéena yu mel nii moom it mu am yéene waaye ci man la ko sunu borom jaarale dëgg la ma ñëw ma ñëw nag ànd ceeg samay mag ñoo xam ne démb la yow mi ma dëkkal micro yow ak sama mag manel yéen a doon ànd jëriñoo ni ngi toog son ibu bu sama famila andal. àndal du kon mom xelam a ngi ci te xam naa ni nii mu waxee ci vocal bi bu ko fekkoon ci réew mi kenn du ko fi jiitu ndax moom lu dugg rek da ciy sawar pour dugg ci mais nag dinaa ko jàpp ci loxo nag indi ko ba kër fii ndax fii mooy kër dëgg Serigne Touba moom bala ngaa dem ci moom da ngay jaar ci Cheikh Ibra ci Ramadan gépp nag kontaan nañ ci lii ma def waaye li ma ci gën a neex mooy su may mag a ma accueillir ànd ak man su may mbokk su may am di jàmb ànd ak man ci social bi moo tax aw ma ci tiitukaay. jërëjëf Ameth kooku moo nekkoon ki nga xamante ni mooy Ameth Samb ñu gën ko xam ci Ameth Thiou Jackson président Ngéwél gi salaam dégg ngeen kàddu yi mu biral macha allah am na solo. kon gaa ñi ñoo ko gisandoo kon noonu la kon continuer di leen ko wéyalee rek tey fii nga xamante ni bii mooy ëttub kër Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina comme ni ma leen ko waxee Cheikh Ibrahima dañu woon ah doom maa jëkk maa mujj sëñ Bamba maa ko gis ko tungoom ba ci kaw joxar bi ko ko yoola muy moom waaye bu ma jële woon fi ablaw ba yóbbu ko ci géttu gànnaar ko sax mu ne ko yoola muy moom kooku mooy képp ku nga xamante ne da def dara tàmbalee ko ci moom boo fa jógee di nga xam ne tàmbali woon nga ci ku mat a tàmbali tàmbali nga ci kii tàmbali lépp bu lépp looy mën di tàmbali romb ko fa foo ko mën di jëm a it bu yàggee tuuti di xam ne romb nga fa nga war a tàmbale romb nga fa nga xamante ni lépp lu fi tàmbali loolu kooku ko tàmbali jërë ngeen jëf tubaarkàlla sant leen gërëm leen bu baax baax yéen ñi safoo Elvision Média man sista Eva nag maa ñëwaat ci beneen dimension ñu ngi fii nag euh, ci njurul bu defe naa bu ma dékkee sama micro président Amath Thiou dina ma ci wax parce que kooku taalibe Serigne Saliou la papa waaw yëg ci am mbégte rek nag ndax nag euh, yoon bii daal depuis bi nu ko jàppee ba léegi yokkute rek lañu yëg ci ñun ndax ngéwél gi salaam ñoom bu nu yegsee ba nu tuba, Touba mhm. yegsi Mbàkke mhm. dugg ci xalifa Cheikh mhm. def suni mbir lenu nu yëg li nuy yëg ñu ngi nii nak, di dem ngay sunu yaakaaru tey ak ëllëg moo ko sos muy Serigne Saliou maanaam fii bërëb la boo xam ne buñ fa rombee du bërëb bu ñuy romb moo lu mu xat-xat dañuy taxaw ndax lu nu am rek Serigne la motax wacc gi ñu wacc fi nga ñu defal interview mom, neex nañu saf nañu lool ndax am nañ ci yëg comme que ñu ngi ci yoon bi ni te xam naa ni ñi ngi ñuy xaar te it am nañ tamit ñu ñuy xaar mbàkke ngéwal gi salaam xam nga dafa sakkan macha allah léegi nag ñi ngi ñi ngi ci yoon ba di dem waaye fii daal fii daal ku fi ñëw daal fii daal ëpp naa romb daal waaw Serigne Saliou daal daa ëpp romb moo tax ñu taxaw fi tuuti fi mooy njulul te man fii moom xam fi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 إلا لا لا إله إلا الله فلا La ilaha wabarakatuh. La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini, ورحمة الله تعالى وبركاته ini di setan may waktu ci vice asosiasi bu association Ngéwél Salam di waktu itu Talib taalibeb Serigne Kaltung Allah Jibara Falilu Ini ñu nekk ci daara ji nga ñu nag ñoom ñoo bokk kër gi ñuy nuyu nag suñu kilifa yi ñu fi fekk mooy ñi nga xam ne ñooy jàngal donga yi euh, ñu ñëw fi nag euh, àndoo nag koo xamante ni nii euh, Mouhamed Samb la tudd mu toog nii di jëwriñ ci association ngéwal gi salaam yàlla dogal mu amoon yéene lool ci daara ji yéene ji mooy nawet bi jubsi na te kenn ku ci nekk xam nañ ne bu nawet jubsee yooyu dañuy bari mu daan ni daara ja ca ngay leen wutal ay moustiquaire mu daal di wut balu moustiquaire jënd ñaari carton yi jënd juróomi carton saabu jënd ñaari balu madaar daan day dem ak bidon diwlin bu vingt litres ni da koy nuisee dong euh, boole na ci it kaamilub alxuraan waaw kaamil bi après xam naa danañ ko jébbal jëwlin Samba Ndiaye ñu ngi ci oto bi waaw léegi loolu euh, li tax président def ko mooy lii yéeneem mooy ndakaaru la jógee te kenn ku ci nekk xam nañ ni diggante ndakaaru gi ñu jóge ak ngay maam bàll gi ñu toog kenn ku ci nekk xam na ñaata kilomètre la nit su ko dawee ay kilomètres yor ñaari oto wala ñetti oto li muy dox yitteel na ko te li muy dox du dara lu dul def te yàlla rek tax séntuwu ci leen bëggut luddul rek eh, li muy def aw ñaqam da ciy bëgg di def lo xamni limuy def dafa sentir ni jëmmi yalla ji rek moo tax mu diko def ku mel bu ma damay sawar and ak moom fi ñu and ak serigne bu mbaay mi ak Ibra bayi Yéri Ngoone and ak soxna Karu bu and ak eh, Ndey Mari Xadi Fay ànd ak Mariama jongu Awa Saw ak ñi nga xamanteni ni ñu ci auto bu mag bi nek ci yoon wi di ñew ndax ñun auto bu ndaw lañ yor dañ leen jitu waaw loolu lepp di wa ngiwol gi salam jóge ba dakar kon ñi li ni dox yitel na leen euh, li ñu def nak ab tambali la ci daara ji ab nuyo la yit ci daara ji ñu bëgg do ngay ñaanal leen lu man ren bu déwénee bu fi ñew mën lu ko raw ba nga xamanteni ni ndegam mom dem na ba ci ñakam mu ci xalaat nga daara kon ku jara ñaanal la manam pour gatal samay cadeau rek di wax ni li rek moy cadeau yi nga xamni ni président bi ni won na nango ko muy cadeau yi cant ay ngeureum xamal len ni len li mu fi indi xeeb nako lol bu sañon bu fi ñew camion lay garé ñuy roñ di wàcc waaye donte fay xamugutoon te musu fi woon a ñëw li ab nuyoom la ab alaykum am la mu bëgg donga yi ñaanal ko ba bu déwénee bu fi ñew katanam yok man-manam yok ci la yëngu yalla ar ko moko njabotam ba suñu borom defal ko tawféex yu bari lii rek lañ ñëwoon nañ ko ci jàllale ci ay kàddu duñ def lu dul jox suñu jëwriñ yu fekk ñu sànni ci kàddu te ñaanal ñu nag ñu daal di delluwaat ca liggéey ba. ñu leen di nuyu bu baax a baax di ñaan sëriñ Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko yàlla yàggal te wéral sëriñ Galas Kaltoom mi nga xam ne nii ah, bu lépp wéyee moo tax ñu ñëw ba fii ndax moo nu bokk jaboote waaye damaa nekk ci daara alxuraan te doon ndongo loo ni alli wom sori wut lol waye lu nit gatt gatt nopp deug na ne bo santul ku santul nit do sant yalla ci lol lañuy doore di sant nar gay mi ta xamne yalla yeen ñi nga xam ne ngeen andal ci li ngeen ne moy ki ngeen andal an ngeen ak akos gor an ngeen ak alali serigne fallu ndax mom nar mi alali alali serigne fallu la naarum sëriñ fàllu lañ koy wooye sëñ galas moñu bolé njaboté té man na né ñun ñi ñoy ay tawi talibé serigne galas bani and ak mom danaka ah, di jéggulu baba sëñ galas ñi danaka tal wuñ ko won lu bari té lañ doora ak te lépp la lepp ngay la nak dama dul wat waye man amna naa da ngeen yokk ba yëg ko yéen ñi ko mana nak, ni rek ngeen mëna nek ngeen mëna a doon xëy soriwul dama nek ci seen biir ndax Ibra mi may tuddu legi mi makoy tuddu man ak Ibra ño bok fuñu fu soxna ci biir neegu maron Ibra bu yoré Binta Maysa ma jël taw taw Cheikh Ibra sëñ Ibra ku xam sëñ gawan xam sëñ Ibra Sàmb xam ne daanaka yéen ñi li ngeen di dox ni da ngeen na delo buum te boy boy ba ni rek ngeen wara def waye waccu len ko nu ngeen teye daara ji rek ak nu ngeen teye islam bi rek yalla teye len non waaw waaw mu ngok tubar fakal waaw tubar fakal kon limay wax fortatu mako kon ñoo ngi leen di ñaanal ci baaxub sëriñ Touba mm. ak ngërëmal sëriñ fallu bi sëriñ fallu am lii ngeen xool ba visé ko ba bëgg ko fi ngeen fi ngeen bëgg egg yàlla na ngeen fa egg ci barkeb weeru koor dégg nañ lool kontaan nañ lool ndax bu ngeen tànnoon feneen dem Fatick bu ngeen ñu woowee danañ ca dem ndax dëgg la waaye ah ndokk nag ba ngeen tànnee suñu keppaar ndax nun ngay rek la ni sagoo ngay rek lañ am naar mii nag dañ koo fonk lool mm-hmm. dañoo leen koy dénk taalibe Serigne Galas yëpp ñoo ngi leen di dénk gën a dénk naar jërë ngeen jëf loolu rek laa noonu naa ko ci dugal rafet li jotaay bi ngeen def dikk fi di jeex yàlla te yàlla yaakaar na ku ko jeex ci ndongo daara gis ko ndax sëy naa moom salaa dafa ne woon am na ñun yàlla ñoo xam ci ku leen teral yàlla teral leen waaye képp ku leen meroo yàlla botte leen mm. ñu ne ko ndax yàlla am nañu mu ne ko waaw mu ne ñoo ñan la mu ne hum ahlul alquran mooy ñooñu ñooñu mooy mooy mooy dongay mm-hmm. ñu ñooñu yàlla mooy ñooñu alxuraan mm-hmm. waaw fii nag yàgg nañ fi lool mën na ni mën nañ fa am nañ fi diir mm-hmm. ndax man daara ji fee la njëkkoon a nekk gannaaw gu leen ko indi fii nii waaw maanaam daara ji mën bi mu ñëw fi 2010 fekkoon nañu fi ñun ñii man ak suñu Modou Camara mee ak yeneen suñu daara yu fi jaaroon ba ci seen Cissé mooy suñu daara yi seen Cissé te Amadou ak sëñ Modou Camara ak man mi it ñu may wax Ndiass Diop xam na noo yàgg sëñ bi lool nag waaw kon nag su ngeen defee lii maanaam danañ ciy sant bu baax ndax nit soo defee jëf ju baax te jëm ko si yàlla maanaam da nga ko war a sant wax ko waaw góor rawate na koo xam ne yow dangay bay ci yoonu lislaam ni ñëw di la bayale kon yow kooku war nga ko sant te jàpp na ni it ñun ngeen liggéeyale waaw jàpp ndax jàng alxuraan rek mënut dem saa nit ki dund kon fu nga jël dañuy dundee lay setal seen yére ngir ñu mën a jaamu yàlla mën a set muy saabu bee nga xam dana mën a set seen yére ba na mën a set mën a jaamu yàlla waaye dana mën a xéwal sole ba mën a toog kon kooku noonu jàpp naa ni da lay jàppale ci sa diine waaw kon loolu ngeen def ñu ngi ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala maanaam mu fay leen ko te lépp lu ngeen man ren yàlla may leen ngeen man demeen lu ko ëpp ki tax ngeen koy def daal am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 asalaamaaleykum wa rahmatullah comme niñ leen ko baaxoo di waxee léegi nga xamante ne nii mu ngi euh, waa association Ngéwél gi salaam ñu bàyyi ko ba ndakaaru biñ ñëwee nag liñ njëkkoon a def mooy dañoo demoon kër xalifa général Serigne Cheikh Jëmb Fall mu Serigne Modou Moustapha mu maam Cheikh Ibrahima Fall moom mi nga xamante ne nii mooy actuel xalif général des Baye bi ñu demee nag doon fa yóbbu li nga xamante ne nii moo doonoon seenub ziar di seen kumte ci ñaareelu kumte wu weeru koor gi ñu nekk àndoon ko ak waa association Ngéwél gi salaam ci njiit li nekk président Mohamed Thiou Mohamed Samb bin fa jugee ñu dem fii di njurul biñ jaaree njurul xolam tooy na sax ndax day dëkk boo xamante ne nii wasilaam sëriñ Saalix Mbàkke fa la dëkk muy dëkk boo xamante ne nii saa yu fa duggee day am lu muy yëg ci xolam ñu jóge fa jàll fii nga xamante ne nii mooy ngay maam mu mu ji Baara Fallilu mu sëriñ Fallu mu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ñëw fi nak di dëkk bo xamni dëkkub alaaji baara fallilu la euh, ñu am fi jëwriñ di sëriñ galas kaltom bara fallilu ñu ñëwoon fi nak ci ay donga dara ñu bëggoon xam amet ndax xam nga ñaata kilomètre nga daw bi lay ma mais sori na dal sori na sori na dal mom xamna ni digënté Touba ak Mbacke mom kilomètre di bari na nga doll ci euh, Touba ñëwaat ba ngay lool lepp nga daw ko ngir lan waaw ngir euh, yalla ngir yalla kon dal jëf ji man nañ ni limi re re re re lépp dang ko def te jëmmi yalla ji rek tax ak weeru koor waaw waaw mom rek nga yë nga yëg nga yek ci lan yow yaag wa association bi ak xamna ni li tax nga def ko yalla la waye amna ño ci andal waaw legi yan kaddu nga am lo leen di wax. wa di leen sante rek ndax mën na leen wo ci leneen waye li ma leen woo ñoom dañoo gën ci sawar gën mako ko bëgg muy ñew la ñu dem defal yalla. booy defal yàlla ci tu tuut tànk yi nga xam ne ñoom ñooy jàng alxuraan nga wut saabu bu fóot seen yére wut omo bu fóot seen yére wut ndox walla ceeb wala diwlin bu leen suural ba nu am kàttanu mën a jàngal xuraan defal yàlla foofu la ma wutal leen ay moustiquaires yoo xam ne ngiwal gi salaam gépp ñun ñoo ko bokk wut aw seen fay nii ndax benn lam rekk du yëngatu ñoom ñoo ci jàpp ba mu neex ba mu mel nii mu mel maam ci mbégte nag am ci kontaante ndax am nañu yëg-yëg ñun ni sentir nañ dara ci suñu biir yaram ndax ba nu demee ci xalifa maam Cheikh Fall dafa xew yëpp gis ngeen ko ñu jóge fa di ñëw fii ci ngay jaar njulul sunu sëriñ bu tedd bi sëriñ Saliou Mbacke yàlla na ko yàlla dolli leer ku ne am na lum fa yëgit kon weer bi ñu ko dox yàgg na noo jàpp bëgg a dem génn sorti waaye sunu boroom moo ñu ko téel natal ñu ko jàppal ñu dat bi defal ñu ko ci weeru koor bi kon moom moo ñu njëkk moom la ñu njëkk a sant moom mi ñu ko defal ci weeru koor gi ba nag jëmalewuñ ko fenn fudul Touba mbakke ak fii ndax nag booy dooree mbir doore ko ci maam Cheikh Fall ci porte ba yaakaar naa ne mbir mi jàll na ñu ne deetawaay sunu boroom xiir ñu ñu jox ko ndongo daara yi nga xam ne xamuñu mënuñu seen dënn bi alxuraan rek a ci ne. Hmm. kon ñun lii ñu def ñaan yàlla di ko def ay ati at te. defuñu ko loo xam ne dañ ko def ba pare am ci benn regretté instant yi ñi ngi yàkkamtiwaat sax waxuma la chaque at mais chaque ñaari weer dañuy bëgg di ñëw ndax lii am nañ ci yëg-yëg ñuy ñaanal xale yii ñu màgg bay firi alxuraan ba ñu koy fekkee ñun ba fii ngéwal gi salaam tabax fi juma incha allah te ñaan yàlla tamit ci leen di jàngal bis jot ngeewal gi salaam indi billet màkk na ko am mu ngi nii te incha allah xam nga ni buñ ko waxee. sunu borom nag mooy dogal. mais am na ni yéene ki te yàlla na ko yàlla def. aw ma nag fay ngeewal gi salaam ndax ñii ñëpp doonoo bàyyi seen yitte bàyyi lépp woor depuis six heures du matin ba léegi ñi ngi ànd ak ñun ñëw kon amuñu seen fay. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf jërëjëf président jërëjëf waa El Vision Média euh, bu ko defee mu doonoon li nga xamante ne nii mooy euh, parcours bi nga xam ne association Ngéwél gi Salaam doon na ko def à travers le Sénégal euh, président mi ngi am sax yeneen kàddu yum doon jot li waaw nga ni. man ni El Vision bii ñoom amuñu seen fay. Mm-hmm. Ah. ngeen ñaanal alaaji Papa Naar Naar Guèye dégg ñaanal Ameth Thiou baax na jërëjëf kon léegi duñ def lu dul àgg ci jumaay Touba ji rek def benn ziar bu ndaw suñ paree daal di kii léegi nag li ma bëggoon mooy ngeen teg foofu seen loxo rek après ñu daal dem ñëwaat incha allah jërëjëf. Ya kula Seexi Bamba yaa mata am dootul ñàkk bay xaaraani yaa defal Seex Anta barke budul deñ may ko Daaru Salaam ak gaawaan yaa defal maam Cerno barke budul dañ yaa ko may mbootum kuy jàng fii diwaan yaa defal baay aafiya jàmm judul dañ yaa ko may mbootum kuy jàng fii diwaan yaa defal Cheikh Ibra Fall dul fay yaa ko woon yoon yoon ba ca dex ga mu naani Cheikh Ibra